ñu am ay ay ay fu ñuy denc seen i jiw ak lépp pour que Sénégal làmbaay ak yeneen dëkk yi ñooy defar jus yi ak lépp lu ñu naan ak lu ñu lekk ci Sénégal. bay bi comme ni nga ko xamante Sénégal làmbaay la waaye ci yeneen dëkk la fii dinaa fi def loo xamee ne képp kuy bay lépp lu nga soxla ci engrais ci jiw ci machine ci gasoil ci ay pompe ci ay forage dinañ la ko jox ñu def ko incha allah may wax ne. képp koo xam ne muy jeunesse la muy keneen li ma ko wax Sénégal liggéey dina leen ko defaral incha allah beneen boo xam ne ñor na ma trop mooy takk der yi takk der yi koo xamee ne ñàkk nga sa bakkan ci takk der ci xeex état dina jël sa njaboot en charge fay la lépp la nga waroon fayee ko ba nga retraite jox ko sa njaboot. dinañ yokk seen i salaire bu dee public bi la bu dee privé bi la dinañ waxtaan ak seen société état subventionné ñu yokk salaire yi képp ku nekk dëkk takk der nga blessé. état moo lay jël appareil jël la en charge ba ba ngay génn àdduna teg sa loxo njaboot dimbali leen fii ci Lambaye fii ci jurbel ak fépp ci Sénégal loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax fexe ba ëllëg daal Lambaye dina nekk sama dëkku baay bi lépp loo xamee ne mooy ville bi dëkk bi gën rafet ci Sénégal Lambaye dinañ ko ci tudd di leen wax ne même kilifa diine yi ñu nekk ci Lambaye ak feneen dina leen jox statut spécial fii képp ku fi kilifa diine sama kilifa diine bàyyi fii la nekkoon maam Thierno Diouf Lambaye ak ñeneen dinañ leen jox oto seen kër ñu état jox leen subvention ba lépp loo bëgg ci dëkk bi nga koy def di ko di feneen. imam yi ak délégué yi ak chef de quartier yi ak chef de village yi dinañ leen daggal salaire dafa leen statut spécial incha allah. lépp lu nga xamee ne ëllëg soxla nañ ko dinañ ko def fii ci Lambaye incha allah. premier conseil des ministres décentralisé ci Sénégal génn Dakar fii laa ko njëkk a defee ci Sénégal incha allah. transporteurs yi mooy ñiy dawal taxi ak ñeneen fii ak feneen dinañ jël subvention jox leen ay taxi yu bees tax jàppale leen ba nga xamee ne dootul benn bor du leen ci topp te lépp lu ñu bëgg ci Sénégal ci seen taxi yooyu ak seen oto yi dinañ ko def maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.